dal leen jàmm seen site d'information Chrono Actu xanaa ñu dikkaat ak yéen ci beneen numéro wu di di Chrono People ñu koy dooree nag ak kii di Titi gannaaw ba ko suñu yenn naataangoo yi invité ci benn site internet de la place moom nag dañ ko doon wax ne Ndeye Gueye da doon wax ne Titi bokk na ci artistes yi nga xam ne ñoo gën a fermé ndax dañu tàmm ñoom di dem dinaa ne supp fee ci Villa Cristal moom ak Viviane ak yeneen artistes Titi nag bañ ko waxee moom mu tontu ko ne. duma am sama jëkkër yor sama njaboot di leen bàyyi di génnaan damay naa ne ay supp fen et que Ndeye bu mu duggati ci vie privée parce que bëggul nit ku dañ kumpa et que sekkul ak moom loolu leen la sekk ak moom mooy muy génnee clip Ndiaga Ndour wool ko ko mu feccal ko mu fay ko bu amee lu mu koy may may ko ko mais sekkul ak moom genre wax yooyu ñu mu dem nag ci kii di soxu bi soxu bébé ku ko xam-xam ne commencement am sax ñëpp dañu doon wax ne doomu titi la ndax xale bi nu mu ko bëggee ak seen voix ni mu nuruwee léegi nag gisuñu ko woon ca mariage soxu bébé soxu sax nee na moom woo na ko waaye titi nag la mu wax nee na soxu bi mosu ko woo ndax bu gisoon appel dina dem ci xew bi baa bu mënul dem mu yónnee ay ñoñom ñu demal ko ca xew bi waaye nag nee na moom moo mës a woo soxu bébé ñaari yoon yu mu dégganteex moom yëpp moom moo woo soxu bébé te nag euh, moom dafa jàpp sax ne soxu bébé li muy wax sincèreul mu nekk nag ay tontu yu xaw a ñagas euh, ndégee nag tontu na ko nee na ko mi ngi jéggalu ndax ba mu koy wax waxewu ko woon dara mais Euh, moom muy leeral ni musul a feccal kii di Titi Ndiaga Ndour moo ko daan boole parce que moom musul ànd ak Titi tourné musu ko sax feccal ci clip bu ñu xoolee moom musul feeñ ci clip bu Titi Viviane la mës a feccal Viviane la mës a àndal dem tourné bu ñu fa jógee exclusivité ah on di dire kii di Tico Tatou Tico nag ñu bëri xam ko ndax sëna ba mu xaw a doy waar lool lool moom nag moo tuddee kii di Adja doom Bijou Ngoné moom nag sur la polémique euh, de sa dernière confrontation bi bi mujj mooy euh, vendredi bi mujj di avant dimanche élection yi moom nag mooy wax ne je voulais juste démasquer les charlatans mais nag waa CNRA déggee wuñ ko noonu moom nag ñoom nag adressé nañu une correspondance à madame Mariam Ndiaye muy directrice générale de la 2STV pour lui demander de mettre un terme définitif au manquement noté à l'émission Confrontation et tamit ñuy wax Bijou mu présente ay excuses am ci prochaine émission confrontation ak aussi euh, à la communauté Baye Fall Moustapha Tall perd son immeuble de 8777 mètres carrés au profit de Ecobank. Même Seck nag moom mi ngi wax ne ki di Diouf Sarr euh, il n'a plus de légitimité euh, politique. Après sa victoire Mamadou Racine Sy offre à chaque quartier à Podor 1 million de francs CFA. maam góor maam góor Diazaka nag moom gannaaw ba mu doon participer ci élection maire yi doon am dimanche yi passé moom nag dafa génnaatoon ci réseaux yi di wax ne dañoo bëgg def benn hold up parce que moom ay résultats am génnul te moom moo gagné fii ci Rufisque nécrologie Mamadou Omar Bokoum ancien percepteur à la mairie de la ville de Dakar moom nag il est en deuil il a perdu sa fille xanaa rek ñu koy jaalal te di ko wax yàlla na ko borom bi may xolu muñ gannaaw élection locale yi ñu génn nag kii di Cheikh Yérim Seck avant les élections je peux dire une semaine moom nag dafa waxoon y aura une grosse surprise à Dakar d'après mes informations te ni mu ko waxee dafa mel noonu la ñu ko gisee ndax lii di Yewwi Askan Wi moom nag dafa gagné Dakar gagné Ziguinchor euh, gagné mairie yu bëri yoo xam ne waaye askan wi ñoo fa déposé woon mu nekk nag loo xam ne bett na doon na mbégteel en commissariat central confrontation entre kii di euh, Mbathio Ndiaye ak jëkkëram boobu di Mambaye moom nag Mambaye da koo porté plainte ndax daf ne Mbathio da ko sàccal montre boo xam ne mi ngi toll ci valeur 11 millions Habib Beye répond aux détracteurs de Kidi Alioune Cissé mu ngi leen di wax nag tous ces gens qui tap sur Cissé pour diir ouais on, on aurait fait mieux il faut être à sa place pour mieux Wally Seck reçu par euh, Monsieur Tuli Nabo Mushigi ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Mbathio Ndiaye gis ne week-end bi ñu génn dafa bind foofu ca page Facebook wax ne je tiens à à vous faire part de ma gratitude pour le que vous m'avez apporté jour la joie un jour la les jours le sourire bon week-end xam naa day wax fan sa mi troisième mariage de Kidi Omoro ak moom mu nekk ci 2STV yi nekk ci émission boobu ñuy wax kakatar jotuñu see am lu ñu leer nag waaye ñu taxaw seetlu rek ba xam dinañ ci ñëwaat. Assane fay Assane Faye pour ko xamul mooy ku waaj a tuuroon ceeb ba ca foofu ca teer ba moom nag il vient de recevoir une importante somme d'argent mi ngi toll ci 1 million de francs CFA mu nekk loo xam ne nag internet yu ñoo ko collecté woon jox ko ko loolu di ab ndàmpaay. La leçon a attiré sur la victoire de Kidindoyban, Ahmed Aydara dara Serine Boub. En est qu'il ne faut pas attendre jusqu'à être maire pour défendre l'île di ses localité Parce que di qui dit Ahmed Aydara, Dindoyban, euh, dit, di dit Serine moom nag la leen tax nit ñi fal leen maire mooy dañoo defar seeni localité avant ñuy déposer candidature. coup dur pour la sélection nationale kii di Bamba Dieng nag nga xam ne ne ci match bi passé moom moo marqué woon but ba ah, dañoo jot ay nouvelles nag kii il est blessé. Alkhaïri aussi, un Mambasin Thiam, moom aussi, elle s'est encore remariée pour la troisième fois. Reménage à elle. organisation des locales kii di Macky Sall nag euh, gannaaw ba élection yi jàllee mi ngi sollicité kii di ministre de l'intérieur à faire l'évaluation globale ba tey ñu décédé ci gouvernement bi l'annonce de Macky à ses ministres moom nag wax la neen ne euh, le premier ministre sera nommé le 8 février incha allah. gouvernement bi yëngu naa ndax conseil des ministres bi nga xam ne moo daan am chaque mercredi Macky nag lam ca wax ministre yi mooy nañ préparer seen ay dossiers te xam ne remaniement dina am ñu jàpp nag palais ba dina yëngu fii ak le 7 wala le 8 février. États-Unis Amina nag di benn sénégalaise boo xam ne Adamo dafa publier wala ay photos yoo xam ne tegginewul foofu ca Snapchat ak compte Instagram am moom nag elle est emprisonnée puis sous contrôle judiciaire et elle est menacée d'expulsion ca foofu ca États-Unis euh, les résultats scanner cérébral de kii di Sadio Mané mi ngi wax ne alhamdulilah tout va bien merci à tous pour vos messages moom nag Sadio Mané moo wax loolu di rassurer fans américains ne il se porte comme un charme. Sintala di maire sortant bu Guédiawaye moom nag mi ngi wax Ahmed Aïdara gérer une mairie ce n'est pas faire une revue Diagne si moom nag euh, dañoo remarqué ne gañewul élection ya waaye nag ca fan ya ca topp dafa yónni woon ay ndaw ñëw di récupérer loolu di gazon ba mu fa installé woon mu nekk nag réaction bu xaw insolite mais nag il s'est expliqué parce que def na bonne open presse di wax ne euh, gazon bi état bi mu nekk euh, foofu mënu ko conserver normal ba du yàqu moom may na leen gazon bi ci xol bu sedd guy mais da ko doon déplacé pour denc ko feneen boo foo xam ne gazon bi dina conserver wu normalement Euh, Barthélémy Diaz nag euh, dafa waxoon ne dina reprendre le marché Sandaga à Dakar Plateau waaye kii di Aliou Ndiaye nag moom tontu na ko ne mi ngi koy xaar de pied ferme. CAN 2021 kii di Aliou Cissé nag moom il a eu à recadrer un journaliste camerounais parce que daf ne ko victoire bi ni mu demee ak ñaari carton rouge alors qu'ils ont joué à 11 contre 9 euh, est-ce que euh, seen victoire bi c'est mérité Aliou Cissé nag mi ngi ko tontu na ko euh, déjà il a répondu vous êtes camerounais mu ne ko oui après mu ne ko nous sommes fiers de nous nous venons de loin et il ne faut pas salir notre victoire Parce que même si on a joué à 11 contre 8, on a mérité, bel et bien mérité cette victoire. Gaston Mbengue hausse le ton sur la victoire de ñi di Yewwi Askan Wi contre Benno Bokk Yaakaar moom nag lim ci wax ne am nañu financé opposition bi te ay preuve laa ci am. critiqué sur les réseaux sociaux kii di nag euh, Virginie mu joué euh, théâtre boobu tout tudd Virginie te mu perdre yaayam yàggul rek muy tata Mariam Dior mi nga xam ne actrice la woon ci foofu ca Marodi moom nag mu ngi leen di tontu ku ci tuddati sama yaay di nga jot sama jikko laissez-la reposer que droit de vivre je sais que elle est fière de moi et que de là où elle est bëggoon na man ma continuer sama vie normalement donc c'est pas parce que j'ai perdu ma maman que ma vie s'arrête donc je permettrai plus à une personne euh, de me critiquer te dafa ñaaw nga nga tiim naan ko xanaa yow sa deewu yaay sa la et c'est vrai que c'est des propos qui sont assez blessants Euh, incendie wu Kër ma Massar ba kii di na ba Ndiaye nag moom elle a été encore arrêtée et garde à vue gannaaw bañ ko arrêté ca jour élection yi le matin bàyyiwaat ko waaye kër ga nga xam ne fa la incendie bi amoon euh, am na sax ku ci jot a ñàkk ñàkk bakkanam saccage à la mairie de Yoff kii di Barthélémy Dias nag mi ngi wax kii di Seydina Issa Samb des documents auraient été détruits je te conseille de contacter madame la sous-préfet des Almadies xamal ko ne am na ay documents yoo xam ne dañ ko détruire fii ci mairie bi ci benn droit boo paree nga dem fee ca euh, gendarmerie nationale porter plainte contre X. dina Issa Laye Samb di le plus jeune maire bi nga xam ne nag bokk na ci ñu ñu fal ci week-end bi ñu génn ci élection locale yi moom nag yëngal na réseaux sociaux yi waaye nag mi ngi wax ne c'est pas la première fois que je suis candidat euh, appel téléphonique ba ko Diouf Sarr def nag moom da ko cee félicité te wax ko ne lu mu mënti soxla na ñëw mu gunge ko ci mission bi mu am ci defar Abdoulaye Diouf Sarr après sa défaite moom nag mi ngi wax ne nous rendons grâce à Dieu la démocratie sénégalaise a une fois de plus rayonné à travers le scrutin du 23 janvier nous félicitons Sidna Issa Laye Samb et Barthélémy Diaz respectivement donnés vainqueurs par les urnes de Yoff et à Dakar nos encouragements et vœux de réussite pour l'intérêt général nous exprimons nos remerciements à tous les Dakaroises et Dakarois qui nous ont démontré une adhésion entière à notre ambition pour l'émergence de notre ville, capitale, notre engagement à vous, servir demeure intact. mu nekk nag euh, message boo xam ne si touchant et que gis nañ ni moom deful ni yenn jegenaayam ni nga xam ne dañuy contester lii di victoire bi Askan bi am si ñoom mën nañ wax ne Diouf Sarr il est plus maire de Yoff mais il a gagné la sympathie de beaucoup de Sénégalais. C'était tout pour votre chrono de ce ma leen di jox dig daje week-end prochain ci yeneen i